Abdou Khoudia affaire du yam fii dina gën a métti. d'accord euh, affaire bu dina euh, dina gën a métti. dina gën a métti d'accord dimbali fu ma bëgg nag ñu taxaw ci waxtaan. Euh, parce que moom la mun naa ne àdduna bi yëpp jàpp parce que booy xool sept personnes yu ñu jàpp ñoom ñëpp ku nekk xam na Aziz naam six la ñu woon sànq lañu dégg que ni jàpp nañ septième personne bi ba dégg nañ que ni papaam moom moo ko ñëw jébbal ko yoon loolu tamit ba njàngat nga ci am. septième personne bi nga xamante ni nii euh, papa moo ko jël dem jébbal ko yoon Jumbori. waa xam nga Abdou Khoudia. Mhm. Euh, kooku papaam moo ko jël dem déposé ko yoon. te ñu ngi koy woo boobu léegi mënuñu ko gis. waaw finalement jàpp nañ ko. Abdou Khoudia. Mhm. olof laa lay wax nag lii. Mhm. est-ce que xam nga. boo rayee naat naat xam nga. naat waaw. lekkee ko sa kër bàyyi. boo rayee naat lekkee ko sa kër bàyyi. waaw mais boo rayee naat daw sa kër nijaay. dëgg la. nga boo rayee nit. Mhm. nga toog nga toog ci sa loxo nijaay. nga toog ci sa loxo papa. Mhm. mooy wooyu police. ak lu ma jege jege jege. mooy wooyu polis ok. déggoo ma. Mhm. yonent bi sax ba mu demee ba xat kër ndijaayam la dem ay ndijaayam ci loxo ndijaayam la nekk ndijaay tuddul ndijaay xam nu mu tudd. ni yaay yaay bu góor la. Hmm. moo gën a soxor sa yaay mun na rey nit ngir yow ndeysaan papa hmm. tuddul papa la papa bàjjan baay ja baay ja bokkuñu lu ñuy représenté dëgg naa la sa doomu baay sax nga rey nit dem sa loxo doomu baay moo gën nga toog si sa baay sa baay da lay jël yóbbu comme ni ma boo toogee si sa loxo doomu baay soo gisul sa nijaay demal si sa doomu baay nga nëbbatu mais nga rey nit toog si sa loxo papa mooy papa kaay boole ma. doomu baay ak ak ak ndijaay ñoo gën a soxor si boo nekkee ci jafe-jafe ñoom ñoo lay wër suñ la wërul ku la wër dalay wor. ku la wër dalay wor boo nekkee ci danger sa loxo ndijaay nga mun a nekk wala sa doo doomu baay nga xaran. Mm-hmm. mais boo nekkee ci danger nekk ci sa loxo nekkoo ci sa loxo liggéey. Mm-hmm. nekkoo ci sa loxo doomu baay. bul nelaw bul xandoor bul xandoor gisuloo aar buñ ko daan def ñun. Mm-hmm. il faut yow nga indi si sa néegu ndigaay pour mu jege la aar yu njëkk ya noonu la daan doxe kon ndijaay dafa am doole ci. Eh, non gisoo Waly Seck. waaw ñan ñoo ko wër nga ko wàllu papaam ak wàllu ndeyam. ñoo ko wër nii de moo tax affaire bi dëgër këj. ah da ngaa foog kalaj kalaj ji la ah, nii néegu ndeyam ak néegu baayam ñoo wër waali lu ñu bari xamul mhm. ci néegu ndeyam mhm. ak néegu baayam mhm. ñoo ko wër mënuloo doon li nga doon leneen wër la lu bokkul ak loolu rek amoo gàllaaj te kenn du la ko wutal billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa mhm. képp koo xam ne nii yàlla jox na la succès mhm. nekkuloo ci loxo ñaar ñooñu bis dina ñëw nga am problème dafa mel ne nag jimboor yi yàlla moo bëgg a leeral mbir yi waaw parce que jot nañu li ñu jot a dégg sept personnes lañ six ñu jàpp leen tey ba ñu ngi tribunal bu Dakar bu bu bi nga xamante ni moom mooy Pikine ak bu Géejawaay ah, ci même jour bi jumboor yi ñu gis si nga xamante ni moom mooy eh, septième personne dafa mel ni tamit yàlla mi ngi ciy bëgg a teg loxo non waaw so gis nga septième personne ak sixième personne. Mhm. sept personnes lañ jàpp du dëgg. waaw mais ñaata personne ñoo nekk ci kaso bi xam nga. bari na képp ku ñu jàpp sa ndey ak sa baay ànd naa ak yow kaso ci problème bii. Mhm. problème bi du problème mu bu nit di am dund ko yow kese ak say mbokk déedéet. Mhm. kii xoola problème la boo xam ni. képp ku ci sa famille bokk. xoola yaa ngi ci gàcce parce problème bi la yàlla jël tey yaa ngi dégg xam naa ni yàlla dafa ne. Hmm. Euh, Binta Camara dañu rayoon Tamba. waaw waa ji bokk ci ñuy dalal nit ñi. waaw <laughs> dëgg bi ñu rayoon. ci biir néegam. sama koñ dëgg yaa ngi dégg. booy bi ñu rayoon taal ko. Hmm. kooku naan ndax golo te génnoon def interview. Hmm. ñooñu ñëpp seeni affaire la yàlla wëlbatiku bootal ko Aziz ne ko acca mooy li nga doon wax sànq Aziz dafa am li nga xam dafa nekk ci moom te nit ñi xamuñu ko. xamuñu ko loolu nga doon loolu nga wax sànq xamuñu ko fu mu toll nii. xam nga tey. waaw moo wax la daal parce que crime yu bari jàpp nañu tey ci Aziz la war a leeree. voilà problème mu Aziz Dabala. waaw ak Aziz Dabala. Mhm. dafa am lu mu bokk sax ak Ousmane Sonko. ndeysaan Sonko. Mhm. tëju Khalifa Sall ak tëju. Karim Wade moo garanti Sonko. Mhm. deewu faat Binta Kamara. deewu Fatoumata Matar Ndiaye Fatoumata Matar Ndiaye. waaw deewu ñi fi ray yëpp te xamuñu leen. ak mhm. boo yooyu ñu fi rayoon. ak doomu xaritam bu ñu rayoon ci ci ginnaaw raay. même pas si waaw ko. waaw loolu lépp la bootal Aziz. loolu la boot. ñi ko doon song benn nit lañ gis mais du woon benn nit leneen moo fa nekk. Mhm. jël nañ deret boo xam ni. Mhm. fii ba ilaa yow mi diini du dañ. wallaahi ci seen loxo. parce que xoolal coow li gis nga ni mu toll déggatoo kenn coow li dafa dem ba boo leen mënee seetlu yéen réseaux sociaux wallaahi dafa toll na fi coowal Ousmane Sonko tolloon. bien sûr. ci bii ak lépp. Mhm. Aziz dem na ba li yàlla joxoon Sonko ci coow la. wallaahi toll na fi sa foo ko dugal mu dox. dëgg la de waaw loolu moom dafa leer. ku ci wax mu dox. ñun muuma sax boo ko wowoon mu mu dox. Mhm. Mhm. mais biñ jàllee ci loolu Abdou Khoudia. Mhm. ñi doon waxtaan dem kër Aziz Dabala. waaw waxtaan bi lan la. loolu tamit Jimbori jaaxal na sénégalais yi. non xoola ci même heure. waaw juróom-ñaari nit. du dëgg. ñu bàyyi liñ doon def lépp jublu ci Aziz Dabala lan la. kenn ku nekk bàyyi li mu doon def. jublu ci Abdou Aziz lan moo tax kenn ku nekk ñu waxtaan ba juboo waxtaan waxtaan ba juboo déggante bi te ci diggante bi waaw jot nañoo dégg am na ay déggante yi fa am ak yooyu waaw waxtaan ba juboo waaw pour dem ci téléphone waaw dem ci Aziz Dabala waaw léegi lan moo tax ñu waxtaan lan lañu ñu d'accord ba tax mu dem bi ñu demee tamit lan la ñu lan la ñu lan la ñu mhm. ba tax Euh, euh, ñu jël ruwam. mais tamit dimbali Sénégal yi ñu ngi laaj lu waral crime bi nu mu demee sept personnes. xam nga nekk ki nga xamante ni nii dañ ko jàpp benn jour wala dañ ko toog di ko mais di day mel dañ ko togg mais sept personnes yëpp jumboori bu ñu mànkoo dégg lan nga am yaakaar ka ne moom moo war a tax ñu jël bakkanu Aziz Dabala ak. non xam nga loolu moom. waaw justice moo koy xam. Mhm. mais man dama foog ne. waaw ñaar mun na ko waral. mooy. mooy jalousie. jalousie. Mhm. ak xaalis. ñaar yëpp benn jaru ko ci. ak succès. Mhm. waaw. Mhm. en tout cas. bu bañeel. waaw kuy wuy nii. dafa bokk ci émission wala. <laughs> Hmm. ah <laughs> d'accord. oui ma. Euh. man seetu Ibou Sakho laa de bu may wax moom lu yëngu dama lay déglu. dëgg yaa ngi dégg. Hmm. ma ni. tey. bi. si bañeel la bañeel. ci bañeel wala wala xaalis ban la ci. Hmm. loolu tamit. ñu ngi dégg ñaar yëpp nag. Hmm. ñaar yëpp ba léegi tamit loolu lañuy dégg xaalis. wala jalousie waa parce que tey. Hmm. téere bi ndomba yi Aziz daan gaw Aziz balaa Aziz di dee. ndomba yëpp dafa tekkee ko. parce que ndomba yi daan gaw Aziz. mooy ñi ñi gën a sës si moom. koo laaj mu ne la ñaari fan dégguma ko. kon ay dalaajam dagg wallaahi. Hmm. xam nga maxu dafa. koo jege toog na dafa way benn way bu am solo te bàyyiwuñ si xel. mu ne su ma ñeyu xare daanu na su yeboo ma wéer sama ngànnaay. Hmm. Aziz bi ñu àttanee xeex ak moom mbooloo. Hmm. boo la waroon xam ne ñayu xareem dafa daanu. est-ce xam nga ni gaynde la. non gaynde la. mais mais xam nga tey. waaw gaynde gu mu nekk moo tax sept personnes. kàmpal ko teg seen dil ba jël bakkanam. ba dem waaw mais ba dem songi ji ko. waaw mais Aziz. bu doon man la. Mhm. maa ànd ak moom xam nga tey. yàlla ak yàlla nag li mu nam ma dogal. Mhm. mais damay wax nii rek pour jàngale. Mhm. gis nga tey bi mu jotee. su woowoon seen waa seen waa kër du fa fanaan bu woowoon benn magam rek Malick man kat dama jote diw nangam nangam nii naa. Mhm. ñooñu dañuy ñëw jege ko. dëgg la. waxa rek. Mhm. mais dafa noppi. mais lan moo tax mu noppi dafa yaakaar ni. Mhm. am na ku mel ne Malick ci wetam. koo mun a protéger. am na ku mel ne rakkam bi kumba ci wetam. wallaahi ndekete amatul loolu te yëgu ko. <laughs> dëgg la de. moo tax ma ne la. Abdou Khoudia. bul di jaawale. boo bul amati sa xarit ba nga ba nga te te wanagu la euh, wanagu la capacité grand frère nga teg ko fa. d'accord. Euh, ma tey mun naa la gis. waaw xam nga dangay ñëw fii chaque jour bu ma la nuyoo ma ne la damay nuyu sama grand Abdou Aziz waaw. parce que bokkuñu ndey ak baay mais xam naa ni sama mag la. Mhm. parce que dafa am place bi ma teg ko fa. Mhm. mais léeg-léeg nit day gis nit ci mbedd mi rek for. yóbbu ko palaasu grand frère. for jigéen ci mbedd mi rek yóbbu ko palaasu yaay. Mhm. for jigéen ci mbedd mi rek. yóbbu xoola am na mhm. waykat bu mag. Mhm. am na fu mu luye woon appartement. rakkam bu jigéen la indi moo ko doon toggal. ba ni mu déggee daal. bugguma tudd tur. rakkam bu jigéen boobu. Mhm. toggal na ko ay ay ati at te ci biir appartement bi la nekk mais lii dem na ba pare. Mhm. mais ñaata façon apartement ñoo am. Mhm. xam nga bari na. Hmm? xam nga ñaata façon appartement moo. ñaata moo doo tëj lii. pour mu seddaay bi ñëw. Hmm. d'accord léegi. ma ne. appartement dafa am appartement boo xam ne Mm-hmm. pour yow kese la. waaw. Ah. am appartement boo xam ne. Mm-hmm. pour sa njaboot la. Mm-hmm. am appartement boo xam ne lu waay bëgg def ñëwal def. waay. mais appartement bu bu xam ne lu waay bëgg def ñëw def rey nit xaj na ko. dëgg la de. d' accord ma de. dégg naa la. mu leer. ma mm. déglu ma. ñaata façon appartement moo am xam nga ko. boo xam ne da nga fay dëkk yow kese. am na ñoo xam ne dañoo dëkk ñoom kese. Mhm. du ñu nangu kenn fréquenté leen. Mhm. dugalante wu kenn. dëgg la am na wala am. Mhm. na ñoo xam ne dañu dëkk ci appartement pour seen njaboot. am na wala am. du dëgg. am na ñoo xam ni dañoo. luy appartement. pour fréquentation pour lu waay bugg a def. mu ñëw def nga ñëw def. parce que am na appartement yoo xam ni ku yanu iri day indi. Mhm. ku bëgg tux day ñëw. ku bëgg naan day ñëw. Mhm. ku bëgg a tëddee day ñëw. Mhm. ku bëgg rey tamit day ñëw a rey. wax la loolu dëgg la moom. oui d' accord. Ah, jumóori sax yàlla musal kii. ñu xam ban appartement lañ ñuy mën a jël comme appartement moo xew. ba ba tey léegi. dañ ci démentir débat ci. lu bëri ak ah, lu ko jël. réew mi ñuy wax. tamit. nañ xool li ñuy wax. Mm-hmm. réew mi est ce xam nga jàngaleetu. Mm-hmm. émission yu bëri du jàngale de. Mm-hmm. damay demantiir demantiir mooy ma ñëw. naan la ak démasqué. waaw diw moo ko lii. diw moo ko lii ñii seetaan xam nga ñan lañ. jàngee ci émission yi xam-xam xam nga nan la def. dañuy bëgg a xam. dëgg la. Ado Khoudia. gis naa diiri semaine bii ñëpp di ma laay fal. ndax man damaa wax lu aay. ku jóg tax ma ku jóg tax ma. Mhm. man damay jàngale. ñu bëri mun naa leen a boot di émission boot man produit théâtre laa théâtre. waaw artiste nga. artiste laa artiste. dëgg la mhm. dem ci école bi xam nga comédien lu tax ñu garaar ñun. Mhm. xoola da ngay dem ci école bi ñu jàngal la dialogue nii ngay waxee ak sa nijaay nii ngay waxee ak sa papa nii ngay waxee ak sa mag. nii ngay waxee ak sa maam. bu jamono tolloo fii fii ngay waxee boo dajee kilifa nii ngay waxee. Mhm. man théâtre laa génn ku toog ni warumaa wax waxoo dëgg bi wax amul dama doon jouer kaset yi gën a neex laa daan jouer fii. Mhm. bu ma nekkul woon pie tamit nekk ma woon ndaare ci artiste ci comi ci comédie li ñuy wax xamuñu ko. d'accord dama ne. li ñuy wax xamuñu ko dégg naa ñu bari di wax li ñuy wax xamuñu ko laa wax gis nga ma wala dara. Mhm. nit. gis nga baaraam gis nga ko nii. gisal mm. baaraam bi. Mm. yaa ngi gis. Mm-hmm. est xam nga yàlla bindul baaraam pour nii. gisal mm. nii jub na. xam nga lu tax mu def ko nii. yàlla dafa ne la wax ma yow la mais bis boo ko tourné si sa bopp ni man la ma damm sa ma damm sa ndigg. wallaahi moo tax duma ma def nii. mais nañ xam ñëpp a ngi wax gis naa ñu bëri ñuy génn di wax rek. Mm-hmm. barki Seexu Tiijaani barki Baay Ñas mhm. lu ma yaakaar si àdduna ak alaaxira yàlla na tas mhm. man du ma wax ngir nit di génne dërëm di ma ko jox dëgg la du dëgg mhm. am naa ay xarit nag si soo bii parce que Waali Seck yaayam moo ma ko jox Amina Poté daf ma jël def ma magam may magam Viviane jël ma def ma càmm ñam yaa ngi dégg tendoo suma xarit la naka la tuddati Euh, naka la ticket ñoom ñëpp ticket moom ma mag daf ma def comme ndijaay. d'accord du dëgg. Mhm. mais ñoom sama xarit lañ. tereewul léeg-léeg bu dëgg jotee damay wax dëgg man damay wax dëgg. Mhm. mais amul kenn ku xam ne dama lay bañ wala dara ma ñëw di wax. parce que xam nga lu tax ma tontu fi lii. Mhm. live yu bëri yi. d'accord may xas ñii di ma saaga. mais la waa wax lu ñuy saaga. keroog bu ñuy wax man tudd ma dara. waxoo fi dara lu ñaaw dama àtte li nga xam ni sama xel la te li ma liñ doon dem di théâtre mhm. moom laay ñëw fii di wax te tamit defe naa su ma nekkoon fii génn ci théâtre di wax lu ma war ta wax mais xanaa ñoom Saneex ñii ñoom Mbay ma jaaga mhm. ñoom Leyti Fall lees Mamadou Camara ñooñu xanaa duñ ma seetaan may wax rek te duñ ma woone ma rak bàyyi lii defal ni d' accord waxal. d' accord na ma am fu ma bokk. d' accord ma xëy am na ñoo xam ne amuñu group ok man dafa am fu ma bokk théâtre laa bokk. ñëw ma di wax am naa kilifa. Mhm. ñu bëri amuñu kilifa dañuy ñëw di wax. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. na mais nañ bàyyi li ñuy def. d'accord xam nga ku jóg tax ma. di saaga di wax lu la neex. wax dëgg yàlla. te yow xam nga ki ngay saaga nii li muy wax. déglul man xasuma nit bu may wax na nit déglu li may wax. xasuma nit de gënuma kenn bay.